waa gars yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñuy suivre sport ñu war a ñëwoon ci benn vidéo wax ci xale bi nga xam ne mooy Sofiane Diop nekk xale boo xam ne jaar na ci Monaco jaar championnat bu France def ay exploits yu réer yi mu nekk xale boo xam ne am na opportunité pour football Sénégal mais am na opportunité pour football France mu nekk moment yoo xam ne mën nañu wax guddi yi Aliou Cissé e, war na ko mën a woo ci bi nga xam ne mi nga préparé pour génne ko mu nekk max yoo xam ne mën nañoo kalifa nañu pare te xale bi franchement dañ ko war woon ak ko man football la mais laata ñëw ci loolu dañoo ñi gën ci page bi ngeen abonné te ngeen bas koy def gange bi pour ngeen am si ay vidéo au taaral fii ci sport sama gars yi Iliman Ndiaye mi ngi noonu comme ni ngeen ko waxee woon Sofiane Diop xale la boo xam ne dafa am mën nañoo xam ne avenir la avenir la boo ko doon tëj équipe bu Sénégal même bu titulaire tey war naa a nekk doublure ki nga xam ne a nekk doublure Krépin Diatta war a nekk doublure Ismaïla Sarr war naa mën a nekk doublure dafa nekkoon ne la te Iliman Ndiaye ni mu nekkee polyvalent Ismaïla nekk polyvalent Krépin nekk polyvalent boo may benn polyvalent mel na Sofiane Diop mu nekk xale ci attaquant bi loolu dana may possibilité pour max lu métti métti na nga a def changement pour Guèye max bi euh, ci nu yomb a yomb ndax dañuy wax toujours li Guèye max mi ngi ci banc bi te yi

coupe du monde il est temps ñu imposé bu baax ci football mondial daanaka guddi yi football bu professionnel la ñor football boo xam ne mën leen may lu ne mais nag gars yi wéy di abonné ngeen di commentaire di partager di like ngeen ñuy xaar fii suñu seen Rmo Sport ak yeneen vidéo ak yeneen jàngat du ñu bàyyi dara merci beaucoup merci am ngeen jaajëf bu baax a baax a baax.